xalaat ku ne am nga wàll am nga tamit noo war a taxawee pour defar ko ñun réew ñun ñoo ko war a defar du kenn moo ñu koy defaral mais jeunesse bi si boppam ñoo war a taxawaat góorgóorlu ku nekk xoolaat yow lan nga lan nga pare pour defal ko réew mi loolu la ñu war a def nit ku nekk yaa xool citoyen bi ku nekk muy journaliste muy ku ne ku nekk ci am wàll. ku ne xam lan mooy sa taxawaay ak lan moo la war. merci maa lay siiwal bu baax. di la bu baax ni dafa mel ni waa Saint-Louis ñoom ñoo ñëw événement bi waa waa Dakar ko organisé mais a ñëw bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar kilifa gi. tur maa ngi tudd Xaarim Dieye. mais lii événement wu Dakar la waa Saint-Louis si ñàkk force occulte ndar yi mënuñu si ñàkk fa force occulte ndar ñëw waaw kon mbir mi moom xewu ñëpp la waaw ñuy bégaat ci pro JPS Saint-Louis teew tey macha allah def délégation bu am doole délégation bu am solo moom la JPS Saint-Louis ñëw def teew fii tey ñu fas yéene yëngal incha allah déglu pro joxeeti ndigal ñu jëfeeti bu soobee taxawaay parce que thème bi loolu la mooy lan moo war a doon taxawaayu Euh, jeunesse bi jeunesse bi suñu ko waxee gis nañu euh, taxawaay bi mu am ci projet ba mu agsi fii à présent lan moo war a doon taxawaayam ci li nga xam ne moo nekk ci suñu kanam. waaw taxawaayu jeunesse bi du dara lu dul protéger li nga xam ni moom mooy projet bi parce que projet bi certes que actuellement jàll nañu ki nga xam ne moom mooy pro ak jomaay mais projet bi dafa laaj protection. protection boobu actuellement moom mooy rôle jeunesse bi jeunesse bi fu mu toll nii dañu war a protéger li nga xam ne moom mooy projet bi projet bi jëm si kanam ndax yàqkat yi ba léegi ñu ngi fi waaw yàqkat yi ba léegi ñu ngi fi fu ndox daan taa boo demee fekk fay tépp-tépp waaye ñuy xamal ne encore manifesta euh, manifestation bi li ko gën a waral bokk na ci xamal nit ñi que projet bi du ñu xeex ba mu yegg si fii ñuy bàyyi muy ndërmeelu projet bi c'est nu la jeunesse projet bi ñun ñoo ko taxawal projet bi ñun ñoo koy soreel waaw Sénégal bi woon ak Sénégal bii day changé te jeunesse bi taxaw nañ pour dogu si loolu. waaw merci jaajëf jërëjëf voilà soxna si balaa ngay def. Ah, <laughs> voilà moom moom voilà sëñ bi. jaar naa la maa maa ngi lay jaar. terminal la maa ngi tudd Ousseynou Sow dëkk Bango. voilà tey tey naka nga euh, naka nga gisee tey euh, bis nga xamante ne nii le président du parti Pastef Ousmane Sonko. Mhm. war na ko jàkkaarloo ak la jeunesse du Sénégal. Ah, d'accord. Euh, tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di di rafetlu aussi seen liggéey yéen waa presse bi ñu mhm. wax euh, journée bi vraiment c'est une journée boo xamante ne ñun ñëpp ñu ko doon xaar parce que quand on parle de projet moom la jeunesse doit être au centre du projet parce que bu ñu waxee projet ñaar ñoo koy doxal volonté ak détermination te quand on parle de détermination je pense que les jeunes son bien déterminés depuis longtemps donc le reste mooy nag jeunesse bi mooy que ce soit dans les coins et les recoins du Sénégal ñu ñëw bokk ci projet bi bañ a maanaam bañ a tayal bañ a xaddi ñu muñ ñu xam ne liggéey bi du yomb parce que c'est un travail à long terme bokk rek loo xamante ne day xëy benn jour mu sotti benn jour dina métti dina yàgg mais tant que ñoo ngi jàpp comme ni ñu jàppee woon au début que je pense dina yomb parce que projet bi lu dul daal lu dul Sénégal retrouver sa souveraineté alimentaire sa souveraineté économique ce qu'on appelle lépp loo xamante ne def ñu ñàkkoon euh, les années passées Sénégal amaat ko moom moomaat boppam pour ñu tegaat Sénégal si raay loolu mooy centre projet bi. merci beaucoup la. Euh, Omar nekk ancien détenu politique du gouvernement Macky Sall. oui. voilà en tant que ancien détenu politique euh, xam nga lu bëri ci projet bi fu mu jaar tey. Hmm. ba ak si fii euh, ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan ay nit tëb nañ leen ci kaso muy sa exemple ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni xew na si mais teewul cette jeunesse là euh, nekk ci projet bi ba mu ak si fii tey à présent lan moo war a nekk taxawaayu jeunesse bi par rapport ak projet bi nga xam ne nii moom la Ousmane Sonko ak ndaw yi Sénégal àndoon léegi. bon première chose lu may wax mooy maanaam euh, jeunesse bi yàgg nañ taxawu projet bi boo gisee avant euh, comme nu nga ko waxee ñu ngi ci tëj ak ñoo xam ne dee nañ si ak ñoo xam ne loru nañ si nga xam ne jeunesse bi ils sont au cœur euh, du projet nag booy wax projet aussi booy wax développement foog nga s'appuyer aussi sur la jeunesse parce que c'est c'est en quelque sorte l'amour phare de la euh, du développement d'un d'un pays donc ñun ñun jeunesse bi ak ñun nunu euh, ta sax booy booy topp si ginnaaw ou bien tout maanaam particulier jeunesse Sénégal d'une manière générale laay wax du ma ne maanaam ñu nekk Pastef kese d'une manière générale laay interpeller ñoom ñëpp nga xam ne euh, projet bi du projet waa Pastef projet ñëpp la képp képp ki yeewee si biir dëkk bi rek maanaam pour éradiquer euh, maanaam gars yi di jël gaal yi projet boo gisee gars yi war kaa sàmm mooy maanaam ñuy ñuy nu mu sax agriculture bi jeunesse bi gën a dellu si agriculture boo gisee aussi ñu ngi ñu war kaa gën a sàmm mooy euh, jeunesse bi gën a dellu maanaam si sur des maanaam euh, nos acquis yu ñu amoon euh, jamono yu njëkk donc loolu loolu la jeunesse bi war a taxawu tey war a jàppale président Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye ñu gën a avancé si projet bi quoi loolu la amoon monsieur. jërëjëf voilà donc gis ngeen actuellement nit yaa ngi wàcc si fii ci esplanade. bu euh, Grand Théâtre gis ngeen noonu nit yi ñu ngi jóge fu nekk moo xam euh, fii ci biir euh, région bu Dakar itam ci yeneen région yi nit ñi ñu ngi agsi actuellement ñi jóge Saint-Louis ñi jóge Ziguinchor Louga Kaffrine fépp ci biir réew mi ay jeunes jóge nañu fa ngir agsi tey fii ci esplanade bu Grand Théâtre donc ku wax projet Euh, bu Pastef wax relation bi nga xam ne dox na ci diggante Ousmane Sonko ak la jeunesse sénégalaise tey jii euh, mu nekk premier ministre du Sénégal euh, ki nga xam ne moom moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekk président de la République du Sénégal yaakaar naa ne. Euh, tey jii euh, message bi lenn lay doon rek mooy euh, déjà thème bi nga xamante ne ni moom moo moom moo am actuellement muy lan moo war a doon taxawaayu jeunesse bi parce que cette jeunesse la s'est battue ba tey projet bi mun a agsi fii yàgg xeex si mbenn mi yàgg wuyu si si ay manifestations aujourd'hui daanaka Sénégal yi dénk ki nga xam ne moom moo di président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays donc jàpp naa ne ñoom ñi nga xam ne ñoo xeexoon ba mbir mi agsi fii ñoom ñoo war a am Faye accompagner ce projet loolu euh, bi nga xam ne euh, moom euh, la ñu war a changer Sénégal ci lañu ñu war a defaree Sénégal donc du ñàkk ni le président Ousmane Sonko comme ni ñu ko yàgg déggee dans ses discours muy wax ne ndawi Sénégal. relation bi nga xamante ne ni am na si digganteem ak ndaw yi ak itam loo xamante ne ni euh, daf ko faral di am muy euh, benn euh, courage boo xamante ne daf koy am à chaque fois bu waree waxtaan ak jeunesse bu Sénégal. donc en tout cas mu nekk lu intéressant te jii gis ngeen waa Kër Massar ñoom ñoo agsi noonu jeunesse. patriotique euh, du Sénégal euh, waa Kër Massar ñoom ñoo agsi noonu comme euh, temps d'autres yoo xam ne ñëw nañu ak seen i pancarte def Ousmane Sonko def Pastef ngeen di gis tout le temps drapeau Sénégal yi nga xamante ne nii da ngeen koy faral di gis si ñoom mu nekk en tout cas lu intéressant actuellement 16 heures jotagul waaye daanaka mbooloo mi ñu ngi tàmbalee di di di di agsi gis nañu région yëpp ñoo xamante ne nii fa la ñu jógee mu nekk en tout cas lu am solo alors. ba léegi ñu continuer di leen wan li nga xamante ne nii euh, moom moo xew euh, fii euh, ci esplanade bu Grand Théâtre sëñ bi ñu ngi leen ziar. da ngeen def mbaa yéen ci jàmm. waa Kanel aussi ñu ngi ci bis bi. ñu ngi lay ziar tur Bari. voilà tey naka nga gisee bis bi ak conférence bi nga xamante ne nii le président Ousmane Sonko war na ko amal tey lan ci mën a xaar. bon instant bi nii c'est une parce que la première rencontre depuis bu ñu jëlee réew mi ba léegi avec avec les patriotes. J'espère que, comme d'habitude, il à la hauteur pour expliquer le projet. Pour aussi que me projet, me, convaincre jeunesse encore pour tenir bon. Parce que le combat vient de commencer. Nous avons fait presque 400 km Euh, pour vraiment représenter le département de Kañel et la région de Matam de manière générale. voilà alors tey euh, yaa ngi ko wax léegi daanaka thème bi li mu doon mooy euh, lan moo war a doon taxawaayu jeunesse bi ci projet bi gis nañu taxawaay bi nga xam na ni am nañu ko démb ak bërki démb ci projet bi ba mu agsi fii. Mhm. à présent concrètement lan moo war a nekk taxawaayu jeunesse bi pour accompagner ce projet la lu lu le premier ministre waxoon rek. Mhm. mënuñu développer eh, réew mi sans la jeunesse ni ni ni le président ni le premier ministre il faut l'apport de la jeunesse euh, par exemple on, on organise de activités les set setal les reboisements ñu jéem a ñu jéem a gérer dëkk bi sinon tous les autorités seulement ne peuvent pas gérer euh, le, le pays là sans l'apport de la jeunesse kon jeunesse bi mooy base bi voilà. merci. ok de rien. jërëjëf gis ngeen noonu en tout cas ñu bëri ñoo xamante ne nii teew nañ fi tey sëñ bi tur bi la. c'est Aliou Sam. Sam. waay Kanel. Ah, yow Kanel nga jóge waay Kanel su la neex nga wax jëppal Derklé. <laughs> alors euh, tey naka nga gisee tey rencontre bi nga xam ne euh, le le président du parti Pastef Ousmane Sonko euh, sàkku na ko mu nar a nekk une conférence boo xam ne nii moom moo ko war a animer jàkkaarloo si ak la jeunesse du Sénégal. waay c'est c'est c'est normal depuis bu ñu jëlee nguur gi ba léegi moom toogagul waxtaan ak ak jeunesse bi. donc délégation mu wax ak jox ne jeunesse bi mu wax leen lu muy xaar si ñoom ban rôle la ñu war a jouer pour vraiment projet bi mun a aboutir parce que projet bi dafa laaj protection dafa laaj ñun ñoo ko ñoo leen fal ñu gunge leen jàppale ba ñu réussir seen projet en fait c'est ça quoi. merci beaucoup merci bi ziar naa la. yaa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah euh, la. Jibel Seck. aca Jibel euh, tey jii gis nga euh, conférence bi nga xamante ne ni le président du parti Pastef Ousmane Sonko moom moo ko war a animé fii nii tey naka nga gisee tey jotaay bi nga xamante ne nii euh, woote na ko war si jàkkaarloo ak la jeunesse sénégalaise. waaw kana di ko xaar rek comme niñ ko daan xaaree si ay déclaration ak ay sortiem mhm. nga xam ne moom ñun benn leader la ñu am mooy Ousmane Sonko mu ñuy digal ñuy def mais itam mu ñuy tere ñuy bàyyi actuellement yaakaar naa ñun dañuy jógee fu métti muy ay xeex porté fi suñu projet projet bi ba mu yegg si fii actuellement nag yaakaar naa ñu ñu ñu ñu yegg si au pouvoir ak nu ñu war a diriger Sénégal waruñu doon benn léegi dañu war a defaraat toogaay xam na kat ñu ñoo diriger Sénégal ñu xam ne affaire bi nekkatul comme xeex wala kii léegi affaire bi léegi stratégie la ak idem naka la ñuy def ba accompagner leen ñu may liggéey Sénégal te xam ne système bu fi nekkoon ak lobby yu fi nekkoon nga xam ne ñoo fi nekkoon depuis indépendance ba léegi teew ñu fi continuer di fi nekk léegi nag ñu ngi xaar jeunesse bi déplacé aussi parce que ñu ñu ñu ñu ñu songo gars yi mhm. léegi nag ñu ne ñu accompagné ba ñu yegg si fii na ñu continuer di leen ko accompagner jàppale leen fii ba cinquante ans si kanam incha allahu rabbi pour projet man a aboutir incha allah loolu daal lañuy lañuy lañuy xaar si voilà mi voilà donc waa Saint-Louis ñoom ñoo nekk noonu yow it yaa ngi jóge ba ba Saint-Louis tur bi naan la. waaw man maa ngi tudd Pape Mbaye. Pape Mbaye Pape Mbaye waaw jóge ba Saint-Louis GPS Saint-Louis. Mhm. waaw di wax ni tey li fi waral sunuy tànk mooy dañu nekkoon ci combat boo xamante ni métti woon na tarap xeex ka ba teg projet bi. loolu la ñu bëggoon yàlla defal ñu ko may ñu si ndam. Mhm. kon nag li nu war mooy accompagner projet bi. te projet bi lépp li nga xamante ni defoon nan ko si tey si tey ba agsi ba yàlla may ñu ñu àgg fii nii tey la ñu gën a mën a déterminer pour accompagner la projet. Mhm. parce que bu ñu yaakaar ni àgg nañ agsi nañ si pouvoir bi rek affaire bi jeex na du loolu. waaw pays bi dañ ko war a defaraat te ku wax defaraat wax loo xamante ni ñëpp dañ si war a def seen doole. Mhm. nekkatuñu loo xamante ni dafa war a nekk lu yomb yombul. Mhm. ku si nekk dafa war a ñëw indi sa tuus. waaw pour ñu mën a defar Sénégal meilleur loolu la ñu bëgg waaw moo tax jeunesse bi nga gis leen ñëpp ñëw taxaw tey tey ñu def jeunesse patriotique ñu woo ñu jóge fu nekk si département yi jógee fu nekk si région yi ñëw wuy si waaw di ñaan yàlla nag yàlla na yàlla defal ndam si li nga xamante ni moonu moonu suma liggéey la ñu woote ku bëgg liggéey nag nga ñëw jàppale ñu si liggéey waaw parce que loolu la waaw milieu politique bi def nan ka après jeex na léegi nag ñoo nekk ci pouvoir bi liggéey la ñu woote nañu ñëw ñu liggéey loolu mooy instance bi waaw loolu la ñu bëgg liggéey Sénégal mu ñoŋ ñu xam ne tey si tey li doon xeex Sénégal moo tax waaw te Sénégal moo siy gagné Sénégal moo siy bénéficié wu waaw ñëpp xam nañ ne Pastef waaw waaw loolu dëgg surtout ça loo xamante ne ñi ngee xaar mën ngeen ko yor mënuñu ko yor ba ñu yore ko kon waaw ah, waaw amuñu expérience waaw mais xam nga xam nga xam nga yooyu yëpp gars yi dinañ koy wax waaw moo tax nag loolu nag moo na war a rendre conscient nag ñu conscience yi li nga xamante ni moom moo ñuy xaar parce que réew du caaxaan de réew du kër mais naka nga gisee les premiers pas actuellement ça ne fait li nga gisee waaw satisfaisant waaw satisfaisant wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku xool rek xam ni ñii woote nañu liggéey parce que ñi ngi gis ay ministre yoo xamante ni toog seen bureau kenn du leen gis mais li ñu gis nii nii dañu gis ay ministre yoo xamante sur le terrain toujours ñi ngi si ñi bi ku si mel ni euh, Mabouba Diagne man daf ma daf ma daf ma daf ma marqué wóor na yàlla man daf ma marqué tellement que à chaque fois damay suivre information mais à chaque fois dañuy wan muy dem di def ay démarches dem au côté de la population di xam li nga xamante mooy kii loolu la ñu soxla waaw ñun xamante ne moom la ñu waroon mën a am ñu defal la li ñuy xaar si yéen mooy liggéey waaw te ñun ñi ko xeexoon ba nekk opposition nga xam ne opposition ni mu méttee ndegam ñoo nekk dem ba nekk pouvoir tey lañ ko gën a mën a xeex pour projet bi réussir te incha allahu rabi yàlla dinañ si defal ndam projet bi dina réussir loolu la ñu gëm te loolu mooy am incha allahu rabi merci beaucoup ok jërëjëf voilà euh, mi ngi noonu donc euh, comme ni ma ko waxee ñu bëri ci GPS yi ci ci sur le plan national euh, ñu ngi fii teew teew semi bi ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu. tur bi nan la. Cheikhou Leye laa tudd. Euh, tey gis nañu conférence bi nga xam ne ni le président du parti Pastef moom moo ko war a animé ñu gis euh, jeunes yi euh, teewaay bi nga xamante ne nii am na ci tey ji ban appréciation ngay def tey ci jotaay bi nga xam ne nii war na ko amal